yéen lan ngeen fii def lan ngeen fii def rek laa xamul. luñ fii def lu si sa yoon doo lijjanti sa bopp nga ama lan lan fii def soxlawuñ la seetuñu la foofu laa bëgg nga yemale ko fa nag. na ngeen na ngeen a xam li ngeen fii wax nag dégg nga li ma leen di wax. ak lu mu fi dul wax sa yoon nekku ci damaa bëgg nga régler danga moytu ma. teel ma sa baaraam dama leen di wax rek. xam nga ma nag bu baax waaw yow it xam nga ma kii xam nga ma yow moom xam nga ma. xam nga lan xam nga lan wax bu bëri. waaye bu bëri bëggu ma ko de Sarr bëggu ma ko Sarr buku ko de bugguma wax ju bari di ci daal dégg ngeen ma leen waaw yow Sarr yow yow yow yaa moom bureau bi wala man maa moom bureau bi déedéet wax ji laa waaw génn si biti may ma dama ko ban kon sa yoon nekk ci génn man nga génn déglu version man nga génn laa wax bu si bi ah bu ñëwatee fii bu leen ko tontu ñëw leen wax seen soxla ngeen dem. Ah, ah, merci jërëjëf ça va madame na ngeen def. ça va bien ça euh, bi nan la. Ndeye Diop. Euh, foo dëkk. Daaru Salaam. Daaru Salaam merci at bi ñaata la. 28 ah, nag <laughs> màgg nga xale ah eh, yow. Rose Diagne eh, at bi. Eh. <laughs> seen bàjjan wala maa ngi koy remercier ah bu ngeen ko gisee ah <laughs> affaire bi lan la man daal sama problème mooy. Mhm. sama jëkkër. Mhm. juróomi at a ngi ne ñuy sëy. Mhm. mais mënaluma dara. Oh, oh oh oh loolu problème la. Ah. ba pare mu naan day takk ñaareel. du la jox dépense wala. dafa maa mënul dara. ah mënul dara doom sax. ah ndeysaan ça veut dire mënul dara ci dépense bi mënul dara ca néeg ba. ah, ah day day metti day metti ci day metti day metti ci xale bu toll ni yow vraiment loolu nag baaxul xale yu góor yi léegi dañuy gëm rek di takk ah madame yéen a bokk jëkkër. problème bi lan la. Ah, li mu la wax dama problème ah, waaye moom daf ma koo jiiñ moo tax mu naan la depuis bi ma takkee ba tey ah dafa la jiiñ ñi yaa waaw ne man maa ko jeexal problème problème bi daal mooy waa ji mënul lu leen dara ci xalé yu ndaw ay xalé yu ndaw mu takk ma fa ma wara a fekk ci man lim wara fekk ci man mënul ci man dara ma ngi nii ba tay ah mënul ci man 100 francs oh oh lolu problème la nak madame xam nga nak yeen jigen ñi daar gi nak mom foog na ni man la déedéet déedéet jarul khaste ha comme yeen ñaara a bokk jëkkër yéen bokk problème parce que moko ko njëkk déedéet déedéet bu len xulo yeen ñaar da ngeen wara a bokk nday ak baay ha ñaari jabar ci bir kër dañoo war a bokk ak nday ak bay légui yeen ñaari yeena bokk problème ñëw ngeen fi du dag kon su ngeen bokkuloon nday ak bay du ngeen du ngeen ko mëna lijeenti motax jigen bala muy tak gor il faut gor ngeen dem vérifier ba xam werna dem yooyu yëpp da ngeen ko wara set mais Sénégal du ngeen def lolu da ngeen di ñew gor bi ñew rek ngeen ana wa mars sey bi dem après moy indi problème yi gor ak jigen bala ñi sey war nañu dem hôpital xol ku nekk ndax amon ben fièvre bu ngeen amulee feebar après sutura lay doon bu sëy amee sëy am bu sëy amul après ku nekk dem mais ci sutura. waaw loolu la adduna noonu la demee. noonu la demee parce que ni ngeen engagé sëy bi la xam nga sëy boo ñëwee rek nga riñaan ko ni boo ko bëggee maf ñandu foofu la coow li nekk. ana seen jëkkër mi ngi dund ah. ana moom fu mu nekk ni est ce que man ngeen ko woo téléphone mu ngi wuy si ma fii léegi ah. est ce que jar naa woo. est ce que jar naa woo ndax xam naa ne mi ngi taxaw. non dina ñëw waaw kon jeex na moom boo nee diw rek moom dina ñëw xam na. kan la. fëggal buntu bi woote léegi mu ñëw. ah non ah non ah non. Saar mooy seen jëkkër. mooy suñu jëkkër. eh mais Saar Saar Saar. eh mais si la Saar nekk tali bi yëpp di baax na ah, quand même ah Saar. oh oh. yaa yaa ya, yaa ngeen di ow oh, kay. Oh, oh, <laughs> Saar tëjee buntu bi. <laughs> Sarr comme dangay ngay yëndu c'est pas la peine may wax li fi xew parce que dégg nga ko comme ñi fi ñëw yëpp yaa ngi dégg li ñuy wax ah gaw <laughs> yow laay déglu Sarr. tontu. di ut looy wax chaque jour. wax <laughs> waxal. quand même. kuy wax ba am lu mu wax da ngay wax. maanaam calme toi rek nopi dina ko régler hein yeen lu ngeen fi wax. lii la daal lañ fi wax. lan moo ma daal. lan moo ma yeen wax ngeen deg wax ngeen deg yeen mayu len ma ma plik aw aw ma repo de de santé. aw ma repo de corps. ngeen bëgg ma am ma ma ma weer pour 100. yow man maa lay may nga noppali. Eh, eh, eh, madame noppi madame bul waxaat madame nga ko. gis uh-huh. man gis nga moom di aar bu ma fa ayee. Mm-hmm. du ma may. Mm-hmm. du ma may si ni li ma nelaw. <laughs> ana waa ana waa man nag nit laa nit laa nit laa. <laughs> nit laa yoru ma raw soo. Sarr mënoo mënoo mënoo ñoom nee nañ yow mënoo nga li ñu wax yaa ko tey. nena ñom ba nga len takkee ba léegi ki yaag mom ça fait 5 ans mëno ki dara. nga noppil ki mo jaasir ma nga nopi bu fekkon ki dafa jaasir ki bu ñëwee di ko mëna dara ki nena bi la ko wa këram joxee ba léegi dara ko ça veut dire yow yaa feebar. pour su dara feebar ñi say jabar lay say nawle lanu dañ la wax nga dekkal len nga dekkol len nga len di jox sër nga len di jox ñu lek nga len jox ñu naan yi soko mënul say bi normal yow joxe wo lek joxe wo naan. Ah, dëkkoo dëkkaloo kon mënoo jëkkër xaar mënoo jëkkër. mën naa tëdd di leen gis ah, loolu du sëy bi nag loolu loolu tëdd yéen seen papa ak seen yaay di leen gis parce que moo ëpp sens euh, bon madame à partir de tey defe naa seen aajo dina fajo ah dem leen ngeen xaar ma fee ci biti ma waxtaan ak moom après incha allah lépp dina baax ah. <laughs> merci beaucoup ah. ma jot ngeen. puus rek da nga rek da nga rus rek voilà sa bët baax na de ah toogal Sarr ndeysaan gàcce. mais vraiment Sarr tey moom am naa gàcce mais Sarr xam nga lu ma yow da nga mën na bu sa bopp Sarr dofoo ah yow dofuloo. saar bi ngay dof dof lu fii ci buntu bi yëpp nekk te ah nit laa nag. nit laa nag nit laa. ah damay lekk di yëg lekk xorom. waaw booy lekk xorom da lekk xorom bu tolloog yow qualité mais xorom bii ngay jéema lekk nii tolloo woo qualité yow mënoo ci bii dara nga wut ko tolloog kooku tamit dangay ngay rey sa bopp. non maa ngi faju. faju woo doo maa ngi faju. bàyyil ma faj la saar. ñooy faj. man maa lay faj. dama lay digal garab bu tudd góoru Saalum. góoru Saalum. Mhm. bo tedde bala ngay tedde une heure de temps nga jël potu gor salum bi nga jël mew nga tibbu kudu nga def nga tibbu tuti kudu nga def nga yëngal bo yëngalee ba mu yëngal nga boole koog meew mi naan une heure de temps <laughs> sar nga essayé. ma do ga nek ci action. <laughs> kay fan la fan la ko mën a amee. soixante dix 16 man kay duma ci commander ben bouteille sax. Eh. <laughs> kii gis nga ko dafay naan midi matin. ah, ah li ah, ah. ma li ma rit lay retraité. <laughs> man mii dama bëgg a dugal ay bii yuy kas. xam nga doom naan dogoon. wala sar il faut nga am doom tudde ma benn doom quand même. waaw waaw hmm? def. jàpp numéro bi wax ma ñaar ñëpp laay gis nga match buñ la boo demee fekki ñu door la score. Mhm. bu dóor booy fayu buñ fekk see loo mën ko man rek dugalal balaa arbitre di wax hors jeu rek nga. boo génnee fii nga woote 77 568 533 16. jeex na ñu di sama téléphone bi woo ko léegi ñu léegi. waaye sa sëre. waaw man ci yow dara. kon su tag lii moo tax nga nekk kon. booy tëgg ci combat del tëgg combat boo attan. baax nga ne waa ji nan la tudd sax. Góoru Saalum. Góoru Saalum. Mm-hmm. maa ngi waajal ñetteel. Góoru Saalum dama koy. nga booy <laughs>